salaamaaleykum suñu mbokk internet yu Dakar Net ñu leen di nuyu kontaan bu baax a baax ci topp bi ngeen ñuy topp euh, seen émission bi nga xamante ni mi ngi tudd Gise ak tey nag dañoo doxantu euh, seet si euh, benn ki nga xamante ni ñu ngi koy woowee Askia Mouhamed Thierno Mouhamed di boroom xam-xam macha allah di def lu am solo ci wàllu ñaan ak wàllu seet waaye balaa ñoo sori ci waxtaan bi dañu koy nuyu bàyyi ko mu nuyoog mbokk internet yu Dakar Net yi ñu ñëw ci waxtaan bi ñu ngi lay nuyu sëriñ bi. salaam bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin saydina wa kudootuna bi ihsaani ila yawmi din ñu ngi sant yàlla beneen yoon du jun ci salaa salaam di nuyu mbokki internet yëpp ñu nekk ci réew mi ak ci bitim réew di leen di nuyu particulièrement yéen waa Dakar net di leen wax bismillah ahlan wa sahlan marhaban bikum salaamaaleykum wa alors dañuy dugg ci ci waxtaan bi direct te ci wàllu xam-xam la ñuy njëkkee alors dañuy faral dégg ñu naan cheikhul ashra lan mooy seexul ashra waa alhamdulilah ci laaj bu am solo bi seexul asraar suñ koy wax mooy sëriñ seexu mooy sëriñ asraar mooy xam-xam xeet la ci xeetu xam-xam yi mooy ilmul asraar asraar nag loolu pluriel la euh, moo bi pluriel la mais singulier mooy sirru sirru buñ koy wax mooy secret secret boobu nag ay xeetu secret ñoo dajee ci xam-xam boobu ñu daal di koy jox Euh, tuuru jam u muy al asraar muy ay secret yu bëri mooy cheikhul asraar cheikhul asraar nag sëriñ la boo xam ne dafay ñaan ñaanul ci ay fétiche ñaanul ci ay tour dret ñaanul ci ay xamb sëriñ la boo xam ne dafay ñaan à travers le saint coran ak li nga xamante ni moom mooy tur yàlla ndax yàlla suñu borom moo wax ne fa lillaahi asmaawul husna fadu biha yàlla moo ne fa lillaahi ñeel na yàlla asmaaw ay tuur xusnaa yu ñu rafetal mu ne fadu woo leen ko ci tuur yooyu kon nga gis ne suñu borom daf laa autorisé ne la daf laa diggal ne la ñaanal ma ci biir digal boobu yi tamit dig na la ci biir ñaan bi ne soo ma danaa la may moo la ne adduwu nii ñaan ma digal na la waaye ci biir digal bi mu ne la astajibu lakum boo ma ñaanee dinaa la may kon Cheikh Asrar sëriñ la boo nga xam ne dafay ñaan à travers le Saint Coran waaye tamit jaarale ko ci tuur yi nga xam ne moom mooy tur yàlla yi tur yàlla yi nag bëri na quatre vingt moo ci feeñ waaye ëpp na loolu nee nañ yàlla am na trois mille tur junni bu njëkk bi malaaka yee ko xam beneen junni bi jinne yee ko xam mu jël yeneen ñaar téeméer def ci injiin yeneen ñaar téeméer ci tawreet yeneen ñaar téeméer ci zabuur dégg nga beneen bu ci des mu def ko ci li nga xamante ni moom mooy alquraanu karim mu nëbb li nga xamante ne moom mooy centième bi waaye seexul asraar dëgg bu góor góorloo ci tuur yàlla góor góorlu ci jaamu yàlla ak ci sellal yàlla dana dem ba xamal ko li nga xamante ne moom mooy centième tour boobu te centième tour boobu wax nañ ne ku ko xam sa yaram araam na safara am na ci yeneen xissa yi nga xam ne ñëw na ci ci ay ngeneel yi nga xam ne làmboo na centième tour boobu kon ci gàttal kii moom mooy seexul asraar ki xam lii ba noppi di ko jëfee moom mooy seexul asraar kon kii moom mooy sëriñ bi. centième tour bi xam nga ko. waa alhamdulilah yàlla xamal nañu ko ñu ngi ciy sant yàlla bu baax du suñu góorgóorlu nag waaye xam la ak yërmandem moom moo ñu ko xamal. alors fu ñu bëggoon a waxtaanee un tamit si waxtaan si actualité mais balaa ñu wax actualité bëgg nañu wax maanaam comme fii euh, gaaf euh, lan mooy gaaf déjà lan mooy gaaf. waaw bon euh, gaaf yonent bi salaa salaam moo ko wax. du sama wax yonent bi moo ne seet leen gaaf ci ñetti ci dëkkuwaay ci waruwaay ci jigéen gis nga doomi yaadama ñetti yi ñoo ko mën a tëj wala ñeent ñu liggéey ko ñu tëj wërsëgam cat topp ko wërsëgam tëju walla mu umu wërsëgam tëju wala mu amee gaaf wërsëgam tëju liggéey ñëpp xam nañ ko dañ lay liggéey cat dañuy xool catu la wala ñu wax ci yow catu la ndax kat cat lu am la yonent bi salaa ci jamonoom bi nga xamante ni effeer yi def nañ pexe bu ne pour faagaagal ko mënuñ ci moom dara dañ leen tettal ne leen am na benn giir gu nekk fee ñu leen di wax banni asad ñoom suñu xiifalee seen bopp ñetti fan kuñ jàkkaarloo rek ne ko yow da suur rek da ngay dee ñu dem fay giir googu xaalis bu bëri nee leen kiifal leen seen bopp ñetti fan ngeen jàkkaarloo ki sallallahu alayhi wa sallam ne ko da ngaa kiif mu dee ñu mucc ci ayam yàlla wàcceel aaya xamal ko yonent bi salaa sallam wa in yakaadu lazina kafaru la yasdukuna bi absaarihim dama samiu zikr wa yaquluna annahu la majnun yàlla ne ko ah gars yi def nañ na nangam de waaye ñooñu kat bu ñu ñëwee waxal aaya bi mooy aaya bi moo wax léegi ba waxee yonent bi mu waxee aaya boobu mucc seen xel kon ñooñu dañ ko naroon jatu à travers seen làmmiñ kon nit dana tëju cat nit dana tëju ci umu gis nga gis nga xale yu jigéen yi sëy yi ngay gis bees lii ñu xewal maanaam ñu leen di takk sol leen lu weex dem toog seen kaw lalu yaay wax sa kaw lal amul problème mais sa kaw lalu yaay nga toog fa te ñu la war a muur nga sëyi ci guddi boobu wala yaa xam kañ loolu moo dàq um jigéen te ñu ngi ko xewal bees muy tendance da leen di um nañ ko bàyyi bu leen neexee nañ toog seen lal ñoom wala seen lalu mag yi mais pas seen kaw lalu yaay te ñu war laa mbóor alors dañu nemmeeku nañ sax d'ailleurs ah, wax mooy indi wax gis nañ euh, célébrité yi weekend bi yëpp presque ñett si ñoom am nañ ay ñii am nañ ay borom kër ñii takk nañ ay soxna muy Medoune Diouf ak euh, suñu jigéen bi ñu takk ah, gis nañ tamit ni Aïda Samb ñetteel la voilà en fait say yaa ngi noonu ndax nga gisee déjà bu Aïda Samb bi ñetteel bi jéggi Sénégal bàyyi fi bàyyi ñu fi ñun bàyyi fi góor ñi dem si Gambien yi naka nga gisee mariage boobu. waaw sëy moom fu ko yàlla dogal la rek. bi yàlla ne ku bu yàlla yëkkatee ne ku bëgg. ruux bi yëkkati ne maam bëgg naa bu nekk Amérique danañ gise ñu bëggante sëy dox seen diggante loolu suñu borom la nga baal ma ma yeggale ci gaaf bi rek kon nee naa gaaf danay tëj um danay tëj gaaf nag yunti moo ne seet leen ko ci kër nit dana dëkk ci kër dem ci beneen kër wërsëgam tëju mu ne ko seet leen ko ci waruwaay nit dana am vélo bàyyi vélo bi jënd oto affaire yi tëju mu ne ko seet leen ko ci jigéen yi tamit nit dana takk jigéen jigéen tëju mu tëju te jigéen yi danaa la jox ñetti mandarga yi nga xam ne mandarga la ci gaaf ci jigéen jigéen buy sax sikkin gaaf la danañ ma saara nag xam xam-xam jigéen buy sax sikkin gaaf la du sikkin yëpp nag jigéen bi nga xamante ne bët yi déedéet benn bët bi dafa am per te mu judduwaale ko gaaf la jigéen bi nga xam ne suy dox tëstan yi ci suuf du tëstan yi du laal suuf day cap di dox gaaf la ñett yi laa la mën a jox ëpp na ñett nag ci màndak li nga xam ne nekk ñeenti tamit ñett tuuti na <laughs> gaaf la ku ko gis gaaf la bàyyil dem wax bi ba ci jigéen bi nga xamante ni tamit weey juróomi weewam yii yëpp dafa xomaat waaw ma maam gaaf la am na ñoo xam ne nag ndoxum siti moo koy def mais am na ñoo xam ne noonu lañ mel de nature gaaf la bëri na euh, quant à wàllu mariage yi ñetti mariage maa ngi koy gis ci réseau sociaux yi xam nga li ma gën a neex ci ñetti mariage bi ay célébrité lañ ñoom yëpp n'est-ce pas est-ce que mën ngaa wax ne diw ñaata lañ ko may ñi fa ñetti mariage yi mën ngaa xam ne ñaata lañ leen may pourtant baadoolo yi lañ fii may ay million ñuy nekk fii di ko sinap di ko siiwal fu ne mu jaar fa est-ce que xam nga ñaata lañ leen may xamuñ ko loolu moo ma ci gën a neex beneen bi tamit am na ñoo xam ne jour bañ leen war wargal siiw na balaa takk jouru takk bi di ñëw ñii kat moo yëg takk bi ñun yëpp dañoo xëyee gis ne takk nañ leen di. ñu jot seen soxna yow suba dafa teg fa xaalis si lal bi xaalis ba ñu koy publier si internet loolu tamit. gis nga loolu moo gën a doy waar jamono bii moo sëñ bi sëy yaa ngi tas comme si c'est pas là possible man gis xoolal léegi léegi takk yi ngay gis nii est-ce xam nga léegi ndaw yi rek ñooy dem takk paa yi nangutu ñoo dem xam nga lu tax bañ gàcc da ngay takk te sëy tey mu def weer suba mu tas wala def ñetti weer mu commencé di dem di régler ay problème parce que amatul sutura lu ñëpp teg bët faaw mu am coow. ils n'ont qu'à éviter ça te ndeysaan benn artiste damay dégg mu wax ne mu ne jigéen ñi seen sëy yi léegi ñetti fan la jour bi ñu daan di andil seen warga ñu sinaab ko ak jour ba ñuy sol seen lu weex loolu te wax naa dafay umaate ñu toog ci kaw lal yi te nga bi ak jour ba ñu leen di muur mu sëy lu ci des yëpp ay mbugalante rek la kon ñi sëy yi sëy yi ñu am yaakaar la ñu leen di ñaanal yàlla yàlla na barkeel Aida Samb yi itam ñu ngi koy ñaanal yàlla sëy bi yàlla na barkeel gis nga am na ci kenn koo nga xam ne te mu doon fecc rek te ñuul kooku nit kenn du ko àtte kooku waaw kooku dafa abone ci sama sama sama TikTok man man sama TikTok ay ñaan rek laa ciy joxe daanaka chaque jour dinaa joxe ay ñaan ne lii boo ko defee nan TikTok ban tur moo si nekk pour ñu bëgg a abonné. Mouhamadou Askia Mouhamadou ay ñaan rek laa ciy joxe lii boo ko defee nag mais dama gis ne saa bu ma dugalee ñaan dana ko aimer commenter ko wax laaj ma ci nan na koy defee nga gis ne kooku mu ngi bëgg lu baax mu ngi ciy góorgóorlu kon ñu jara bàyyi xel nit duñ ko juger ci apparence am.